Ahmed Aidara. Bismillah nguur gi ah. ak opposition bi de attention de attention de termine opposition bi ak gi day ah lii ramte nag wala jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a génn mar di tali parce que nag ña ngay tuumaal nguur ga daal ne wàllum njuñ jaay kon la ñuy préparé nag sa wàllum élection ya waaw waaye itam opposition boobu bee ba ngay menacé ne kon dana bloqué assemblée nationale ga xam ne kon waaw élection yoo dana leer wala du leer moo tere ne kon opposition ba ma ne la seen xel day na dee ci wàllum njuuj njaaj boo xam ne ne kon ay mbirum sàcc uh-huh. waaw parce que Aïda Mbodj mi nga xam ne ne kon député la bokk ci parti démocratique sénégalais day waaw nee na président Macky Sall ci boppam kon la muy préparé du dara lu dul wàllum njuuj njaaj ci élection yii nga xam ne kon ni ngi dëkk ki nga xam ne tamit moo yor wàllum élection ci parti réew mi bu Idrissa Seck day yokk na ca xarma karaw uh-huh. as Babacar Mbengue waaw nee dama ne la wàllum njuuj njaaj googe lu politique pour nag maanaam kon mu yoreel ko wàllum élection am yoo yee processus électoral ba waaye duñ leen bàyyi nag ñuy def ko lu leen neex ci carte nationale d'identité yii nga xam ne dana jeex fii ak déwén la carte d'identité di jeex waaw terminé rek kaay ne ca 2000 day waaw tuma yu ni mel ne kon lañ gisoon opposition bi doon ko yëkkati dee ci nguuru parti socialiste ci lu jëm nag ci wàllum ay carte yoo xam ne dañ ne ña ngi ko doon defaree kon ca Israël gee ma ne la général Lamine Cissé moo nekkoon ministre de l'intérieur ak Ousmane Tanor Dieng mi nga xam ne moo nekkoon chargé des affaires présidentielles ñoom lañ doon tuumaal ndekete tuuma yoo yee naada rien dara ba dara booloo jeex ndaxte nag alternance am na opposition boobee moo mujj kon gañee lii di kon waa nguur ga opposition bee nguur gi la nag day le tey moo yéene kaay nee na jàkkaarloo ko dana am de mardi tali face à face corps à corps assemblée nationale ke opposition bi dee tey la gën a taxaw ngir nag bloqué kon commission yi nga xam ne danañu ko defar tey maître El Hadj Diouf ne man day fase ne naa taxaw ngir jéem a woo nag bépp député boo ko nanu koo football violé ko ko fële te maa ngi woon ak président Macky Sall laa lay wax nii mu daal di jubbante Moustapha Niass ak ñi ma àndal maître El Hadj Diouf yamu ca ndaxte nee na nan la juróomi député kon mën a taxawalee groupe parlementaire cinq député ma ngay woon ak sénégalais yëpp ngir ñu daal di dikk na ni ki tey jële ca buntu assemblée nationale ga ngir ñu def comme juin 2011 enquête ne dajale bi nga xam ne la opposition bi dee na mën a ñu saboté liggéey xam ne kon moom la ñuy def ci assemblée nationale gi opposition bi ci assemblée waaw dafa yorul sax ay jumtukaay di ay moyens yu mu bloqué kon assemblée nationale gi lee président Macky ci l'observateur ne ñi nga xam ne dañoo bëgg nag maanaam liggéey ngir tilimal bànqaas su réew di institution yëpp maa leen di dànkaaf maa leen di avertir de parce que nag daa am yoon day nag am fu yem Ahmed Suzanne Camara ci la populaire ne gis nga ay ñoom Oumar Sarr ak ay ñoom Ablaye Balde ñi le seen place ca Karim la ilaha illallah ci mi waaw parce que ni ñu or la doon yoon Karim ak ñu seen géeru la ilaha illallah li ah kay président Sall ci kay gis nga or nguur gi ci waaw dana na ba ko président ci libération kay man ak nit ko man nit ko am def ba Sénégal jëm kanam ne ko ko ci kay ne président Sall ci amul xam xam-xam laa la wax bu mu jiitee réew mi amul compétence yi ah maa la ko wax Cerno bokkun ci enquête yéene kaay ne nguuru Macky wax ji nga xam ni kon ñu ngi koy wax na ci wàllum FMI Sénégal a jël kon ñaar fukkeelu réew dool ci àdduna bi daal waa nguur gi loolu lée lañu bëgg kon ci bopp nit ñi débat boobu lañ bëgg a bu dee kontaanoo ci sa nga xam ne dañ ne na ci ñaar fukki réew ak juróom yi gënoon dool ci àdduna bi mais yow lenn rek ngay jéem a def mooy débat bi wax joojee nuñ ko gasee suul président Macky Sall ci libération yéene kaay ne xam nga nekk fi sax naan Sénégal bokk na ci ñaar fukki réew ak juróom yi gënoon dool loolu amul sax amul sens parce que yow boo xoolee taxawaayu Sénégal ci lu jëm ci wàllum koom-koom mais loolu amul sens Moussa Touré la mu wax daal ci wal fajri ne xam nga ay gént la sax toog fi naan gouvernement Macky Sall bi lee mën naa développer Sénégal waaye loolu ay gént la élage yi amax loo kay dal ci laas yéene kaay nee nekk ni daal Sénégal màggat mu feebar la foo làmb day miti daala wax foo làmb day miti wàllum béy maa ngi ni lay wàllum njàngam yeeg njàngale mi ay soxlawuñu ay kayit yu jóge ci FMI wala ci ay banque mondiale ngir xam ba xam Sénégal am na ay jafe-jafe waa wala déet parce que saay bu ñu xëyee di gën dugg ci guta mbir mi gën a lool dara nag waralu ko lu dul ñàkkum gis-gis di manque de vision boo xam ne kon moom la gouvernement wu Mohamed Boun Abdallah Dionne mi la nekke waaye tamit yorin ko bon goo xam ne nag waa kër Macky Sall yor nañ ko suñu alal jëlee di dépense publique xam ne amul fenn di extrême pauvreté réew mi quotidien ne nga xam ne ñoo doon garder président Macky Sall 2012 de te ñu jël leen tege leen ne waaw ña ngay wal fajri ne ci biir armée bi day takk der yi mujj nañoo wax Cheikh Ibrahima Soxna kilifa diine la ca Fatick ci populaire nee na am na ci ñenn ñoo xam ne day dañoo bëgg a wuutu président Macky Sall maanaam président lañ bëgg a la ilaha maa la wax ma ne la dogalu la wax man Cheikh Ibrahima Soxna maa ko wax kilifa diin la ca Fatick waaw nee na nag foofee laa yem yéene kaay gi ne journaliste yi dee buux nañ ko wax ne ko tojal yax bi leeralal mbir mi ñooñee fu ñuy ne waaye sëriñ bi ne foofu daal laa yem élection du leen fi fekk laa wax alaaji xaayaar nag ku dégg séeréer gisaane pe tax am na li saxaar am na tani ga wasaana moo tax man duma ci débat dama na